bu dee bëgg nga Sénégal changé. na la ko jaral. bàyyi sa liggéey benn fan dem jëli sa carte électeur ngir mën a voté. na la ko jaral. woote ngir ceebal ak diwlin bu seer courant ndox. faj ma bon ak njàng mu tàgga téeme ci biir réew mi. na la ko jaral. vote ngir pétrole gaz uranium zircon or ak jamaa bi ngay dégg te mënul amal njariñ doomu réew mi. na la ko jaral. voté ngir dakkal injustice jaay dooleeg sàcc ak luubal gi am ci réew mi. na ko jaral. voté ngir leeral ñu rey suñuy doom jaay suñu géej ak ñàkkum xëyu ndaw mi am ci réew mi. na la ko jaral. pour Sénégal baax mu ngi dépendre si yow na la ko jaral na ma ko jaral. Olof Njaay danaan addu kalpe li ko kalpe jaral ko jaralee boroom kalpe kalpe du dem. wallaay achim. na la ko jaral. yow sama papa yow sama yaay. yow ndaw réew mi nga xam ne da nga dem ba amatoo yaakaar ci sa réew mu jaral la ngay jël gaal wala ngay dox ci désert bi pour dem ci yeneeni réew jàpp ne loolu ngay wëri ci yeneen réew mi ngi fii ci suñ réew mi li tax mënoo ko gis li tax mënoo si jariñu mooy système bi nga xam ne daf nekk depuis 1960 di ñu nax di ñu tuur lëndam jàppee ñu ay jaam ngir dindi loolu nag mi ngi dépendre ci yow mu ngi dépendre ci man. na la ko jaral. pour ñu am Sénégal bi gën Sénégal bu moom boppam Sénégal boo xam ne justice bi day tëddee njaaxaanaay Sénégal boo xam ne ki am ak ki ñàkk ñoo fi yem Sénégal boo xam ne dund gi dina yomb faj mi dina yomb njàng mi dina yomb. wallaay achi. la ko jaral le 24 incha allah soo xëddee julli nga dem ci bureau de vote yi votel Bassirou Diomaye Faye ngir am Sénégal bu moom boppam Sénégal boo xam ne dund gi dina yomb faj mi dina yomb njàng mi dina yomb te loolu mi ngi dépendre ci yow na la ko jaral jaral na ma ko jaral. na ko jaral. na la ko jaral. na la ko jaral. na la ko la ko jaral.